wax ba ne gër géex nag waaye duñu convaincre kenn kane Abdou fay maanaam dafa xaro yow biir commissariat central ci ay toilette nan la fa nit mën a duggee yor ak njàmpe goo xam ne dañu koy sangu ci temps bu yàgg boobu ba daal di fay ñàkk bakkanam te li nga xam ne mooy garde à vue maanaam dañ laa wax na la tegal bët ki nga xam ne moom nga téye yéene kaay gi nee na moom Seydi Gassama gëmul li nga xam ne moom la waa police wax daat nay wax ne ñi nga xam ne ñooy faatu ci commissariat yi jamono ji nag bëri na loola il faut ñu wut ci li nga xam ne mooy solution ndax fitna ji nga xam ne ñenn ci takk der yi dañu koy teg askan wi war nañu ñu see jël ay matukaay ba tey ci biir yéenekaay gi ñu fekk fa Moustapha Diakhaté nee na ab pétition la bëgg a lancé boo xam ne lu toll ci juróomi million ci ay doomu réewum Sénégal la bëgg ñu daal di koy signé pétition boobu nag mu ngi jëm ci gàllankoor Macky Sall ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat ñetteelu mandat bi moom la Moustapha Diakhaté bëggul ba tey ci biir journal bi moom Moustapha Diakhaté def na ay révélation nee na Marème Faye Sall première dame ci boppam bëggut Macky Sall def gi di Rewmi Quotidien L'Observateur soleil libération mboolem yéen a kaay ñu xëyandoo yépp xëy di ñu xibaar naan ñu tournée économique bi nga xam ne njiitu réew mi di Macky Sall ma ngi koy amal ci Saint-Louis ci Dagana ci Podor askan wu bare bari ñoo génn daal di koy mobiliser la maanaam tapis rouge la ñu lalal Macky Sall yéen gi nee na gox yi nga xam ne nag dafa sensible Macky Sall daf koo teggi yéen kaay gi de la sa nee na démonstration de force bu ma sëkk moo am Omar Sarr daan nay mobiliser fi nga xamante ni mooy Dagana Cheikh Omar Anne moom tim def mobilisation boo xam ne mobilisation bu rëy la yéen a la soleil nee na njiitu réew mi di président Macky Sall nee na lu toll ci deux cent quatre-vingt-douze dina ko jël dugal ko Podor yéene kaay gi di dépêche nee na Macky Sall jamono ji ma ngi ci ab campagne électorale te heure bi jotagul Macky Sall day campagne yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba la Macky tertu nañu ko dalal nañu ko comme ni ñu dalalee buura fi nga xam ne mooy Podor tapis rouge lañu ko lala la yéene kaay gi nee na Macky Sall jaajëfal na ñi nga xam ne ñoo nekk diwaanu Podor yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal xëccoo ñàkk diggante Mamadou Racine si ak ki nga xam ne mooy Aïssata Tall Sall yéen a kaay gi di Vox Populi nee na Macky Sall wax na ne dina amal ay arrangement diggante Racine si ak ki nga xam ne mooy ay Tall Sall yéen a kaay gi di Le Quotidien nee na diggante Aïssata Tall Sall ak Racine si Macky Sall wax na ci lu leer nee na waxtaan leen seen biir ngir na ngeen mën a jubo maanaam ngeen mën a trouver consensus discuter et trouver consensus yéen a kaay gi di L'Info nee na mouvement Alsar ànd liggéey Sénégal ak Racine Sy def nañu mobilisation boo xam ne mobilisation bu mucc ayib la moo tax njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay bu baax a baax Mamadou Racine Sy nee na ko tuye mon liggéey rafet ndaw ñi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci Podor ñoom ñëpp ñoo génn daal di dagg topp ko foo tollu dégg Racine yaa bëri doole gi yéen a gi di réew mi quotidien nee na Macky Sall nag bi nga xam ne dem na ba tolloo ak Saint-Louis foofee nag dañu ko fa doon yuuxaloo yéen a gi nee na ci Ndakaaru lébu yi ñoom nag nee na ñu ñooy tàndal léegi seen bopp seeni a kaay gi Ndakaaru nee na dootu ñu nangooti benn yoon ñu ñuy jëlee nag sa àll ba ab candidat di ñu ko andi la yéen kaay gii di Les Échos ñu xëy fekk fa maître Madické Niang nee na manifestation yi nga xam ne amoon na ci réew mi ñi nga xam ne ñoom la ñu tegoon loxo xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké def na kem kàttanam ngir nag mbooleem ñi nga xam ne tegoon nañu leen loxo ñu daal di leen di bàyyi yéen a kaay gii di waa Grand Place ñoom nag nee nañu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gii di seen o ñoom nag mere nañu lool ki nga xam ne mooy Mansour Faye Mansour Faye mi nga xam ne ay jamono mu jiite woon hydraulique ñoom nag nee nañu mbooleem jafe-jafe yoo xam ne am nañu ko Mansour Faye moo leen ko tekkan am na lu toll si ñeen fukk ci ay militants yi yoo xam ne biir seen o la ñu leen dugale jox leen salaire yu baax yoo xam ne te benn yoon rek la ñuy liggéey yéen kaay gi di réew mi quotidien ne na place bu Malika lu toll si juróom benn ci ay nit lap nañu sa géej ga ba ñàkk seen bakkan yéen kaay gi di libération nee na ëpp na ko lu toll ci fukki nit ñoo lapp ci géej gu Malika yéen kaay gi di Vox Populi nee na ëpp na ko lu toll ci fukk ak juróom ñoo lapp ci géej gu Malika am na lu toll si juróom-ñeent ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ak L'As xëy duñu xibaar naan ñu opération bi nga xam ne gendarmerie doon nañu ko def ca Wakaam fekk nañu fa benn jigéen boo xam ne bi ñu ko séquestré ak léegi toll na si juróom-ñett cay at jàpp nañu fa lu toll si ñaar fukk ak juróom cay jigéen ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp ci anam boo xam ne anam bu jaarul yoon la yéene kaay gi di Stades xëy ñu xibaar naan ñu Sadio Mané mi nga xam ne moo doon ngaññi police bu Stade Ba tontu ko Matar Ba nag def na ay rëq-rëq maanaam Matar Ba dafa tarxiisa waaye nag Sadio Mané amul benn yoon